Pamar gi laa dëkk damaa feebaroon ay 4 heures du matin ñu yóbbu ma hôpital régional léegi bi ñu ma yóbbu hôpital régional euh, bi docteur bi bindal ma euh, ordonnance ñu jënd ko léegi bi ñu ko jëndee pare ñu perfusé ma léegi bi ñu ma perfusé ba pare euh, ki nga xamante ne kii moo yëkkati nit ñi ci pousse pousse bi di leen teg ci kaw lal bi bi ñu perfusé ba pare kooku moo dugg ci biir brancardier bi quoi voilà moo dugg ci biir mm. léegi bi mu duggee ci biir nekk ci sama jumbux bi di fo ma ne ko yow lii lan la sama jumbaxo métti mu ne ah sa biir métti bu di bàyyiwaat ba mu yàgg mu jëlaat loxoom xam nga jigéen bu woddoo ba pare day def kii mm-hmm. mu jël loxoom rof fi di def nii bu mu jege mu jàpp sama kii bi fii taat bi fii di làmb di làmb mu pare mu jël su loxoom duggoo ci sama biir mbubb mu dugalee sama biir bi di kii ma ne ko yow bàyyi li ngay def mu ne ma fekk ma bank sama loxo nii ni ma ko bankee nii mu ne ma soo ko nii loxo bi raakol bi du dem mhm. il faut nga bi mhm. ma tàllal sama loxo mu jël loxoom teg ko ci kaw pooj bi mhm. mu tegee ci kaw pooj bi nag léegi nii génn waa yàlla yi nii jël sama loxo bi fii nii nii daal di koy teg ci waa yàlla yi nii daal di nii daal di tëdd nii na man mi am naa lu ma téye tëdd sa kaw loxo bi comme ni ma tegee nii loxo bi nii mu génn waa yàlla yi ne def ko nii ba pare man ni ko sëgg nii di def di laal préfiche kii bi nii waaw ma après nag ci laa ko ne yow looy def nii daal di fel mbubb mi nii rek gis ko nekk ci biti man ko yow nii la ñuy fajee mu ne ma bee génneel boppam léegi nag ma daal di jóg def ndànk di soox ba dem ci ki ma àndal ma wax ko ko ki àndal nag sa kaw moom moom ndax daf koo génne ni ma toogee nii ni ci moom ci yéreem nii moom ci la taq moom ndax daf ko génne toog xam nga boo ko génnee toog affaire bi day taxaw moom ci dënn bi fii la yéreem yi yëpp taq nii sama loxo yi taq man na lii nag dinaa ko wax ba ñëpp dégg ko pour moom bu fekkente ne ma nga fa kon yàgg na koy def wa ilaa xale dina fa ñëw ko ko def euh, seen nga xamante ni mooy chef moom laa àndal ba ñëw mu ne ma xam nga kan la ma ne ko. ku jigéen ki. non ku góor ki. Mhm. ci boppam moom laa àndal ndax bala ngaa dugg hôpital. chef de service bi quoi voilà. ban service la woon. accueillir. accueillir waaw accueillir. non yow fan nga hospitalisé woon. Euh, accueillir lañ ma tee accueillir lañ ma am ñaari fan. léegi nag dem naa démb ba gis ko mu ne ma kan la ma ko kii la. ñu woo docteur bi ne kii yow yaa ko doon faj mu ne waa kii man maa ko doon faj. mu a ah ma ne ko nag si ki ki nga ma booleel mu teg ñu ci ah, ko ma doon làmb sama jumbo naan naa biir ñett la dënd bi ba fii dënd la biir ba fii euh, biir la lii ci biir fii naq la. waaw moo tax ma ne ko dinaa ko wax pour en ñu bàyyi ci xel léegi nag ko nee na ma yow waaw damaa naroon na dama ko naroon may riir mu ne ma bu ko may riir ndax fi mu toll nii damaa bëgg nu ñu waxtaanee ba génn ko ci hôpital bi pour mu génn ci hôpital bi ndax lii boo demee yàgg na ko. chef de service boo xam na waa na ko. xam na ko man ki ma fekk daal euh, dafa xaw a gàtt nii te ñuul te am ay moustache mais du mag jeune la rek dafa xaw a gàtt nii tuuti moom moo monté woon jeudi euh, ba di vendredi.